48 heures bi ñu tojé kan ci ya nek fële ca marché Sandaga commerçants yi di commencé di buub sen bagage ngir dem ci sen bërepp yu yees lay nek ci champ de course lu ñu mel indi ay jafé jafé ci ñenn ñi. metti na moom parce que sama yaram bee ko dagg wax deug yalla ndax ay vitre rek yépp sama vitre sax fa toj mujjee mooy mu mujjee moo koy ni parce que dafa mujjeen fitne wu ba nga xamni té te ko am ku la jappalé parce que ñi juri ji nañ quoi bu fekkee am nga ñu lay jappalé sa affaire man na mën yomb mais yóbbu fi ko fi yékké affaire daal baax quoi.

Euh, nit ñaa ngi am envie defar seen place yi pour euh, jéem a commencer liggéey euh, léegi nag situation bi gis ngeen ko am na place yoo xam ne dafa xat trop dafa xat comme man bi ma am ni dafa xat trop naqaree aménager mais puisque site bi non seulement enclavé na mais aussi difficile d'accès mais parce que am nañ suñ clientèle yoo xam ne ñu ngi ñuy oo am na yaakaar ne dañ ñu fu fekk am na ñoo xam ne 2 mètres lañ 4 mètres carrés lañ amoon.

am 2 mètres soo soo calculé mën nañ wax 3 mètres carrés lay doon léegi nag loolu aussi de ces woon ñooñu dañuy obligé des fois xam naa ne autorité bi jox leen 4 mètres carrés yi moom matul moom. waa nii dafa am yu rëy am yu tuuti am ñoo xam ne bagage palaas yu mag la amoon waaye yii dafa tuuti yi xat borom palaas yu ndaw yi yu mag yi nan leen delloo seen i palaas ñu mën cee dugal ndax ñu yore machine seen i machine sax a cee dugg ñu bëgg leen a Modou Sall neena amul dara lu muy xaar nam jox nañ ko ab cantine am lu muy def mooy installer ay marchandise am commencé wéyal ab njaayam. amatu lu may xaar quoi comme liggéey bu fi rek damay liggéey jox nañ ma cantine ma tafi en attendant provisoirement naa ñëw installé samay bagages ma gisee client jaay suma gisee client ma jaaxaan sant yàlla rek xam ni voilà am naa place dal sama bés moo pon bii sama bés moo pon bii moo gën a gudd moo gën a yaatu moo gën a njool ci kaw moo ko ëpp dimanche rek dal mais nag amul problème quoi maa ngi fi daal toog xaar yàlla daal. di ñaan ngeen ñaanu yàlla mu doon kii di Amath Kharibé di jam baaraama kii di ministre Abdou Karim Fofana ndax bi muy defar planu marché bi yëgawul ak ñoom mu dem bay wax sax ministre bi dafa mel ni da leen doon saboote le ministre dafa wut promoteur defar ko sans pour mu ñëw waxtaan ak ci defar bi ay ayants droit yi cest mu ñëw ne léegi. nii lañ ma ko defaree plan bi est-ce que plan bi arrangé na leen. defar nañu ay cantines yoo xamante ni 60 pour cent yëpp ay 1 mètre la 1 mètre yi nag ñaari nit xajuñu si par exemple ku yoroon 2 mètres Sandaga di nekk valeur presque 13 millions jusqu'à 15 millions ñu ni la ci 1 mètre yi xam nga loolu rafetul loolu loolu liggéey boobu man pour man sabotage la wala mooy ñii ay dof lañu rek naa leen naa leen. déjà na lañ bëmax ñu génn ba tax na muy wax ne sandaga ak fii mënul bokk ndax fii accessible te sandaga fu ne la nit ñi doon jugee di ñëw di jënd si sandaga ak fii moom mënuñoo bokk c'est diamétralement opposé moom sandaga ak ak ak ak ak ak ak course sandaga nga xam ne dafa accessible fu ne oto nga fi di ñëw tali bi nit ñi di gaare di jënd par exemple fii nii fii dafa enclavé ñu bëri sax am na boo leen ne champ de course xamuñu fan lañ tabax marché bi yow tey jii nii boo duggee fii foog nga prolongé 150 mètres xool sa droite doo ko dugg ba noppi doo ko dugg ci bi marché bi kon donc moom mënut a nuroo ak Sandaga te Sandaga <laughs> presque c'est mondialement connu bokkul ak fii. Ndeye Fatou Niang bokk ci commerçante yi ñu toxal moom nee na fi ñu leen indi baax na torop ndax defar nañ ko ba mu yànj li ñuy ñaan rek mooy autorité yi ñu respecter seeni engagement. tur bi baax na ndax fi defar nañ ko ba mu baax mën nañ fay nekk. di fi jaay ba kenn feulé di pare waaw su pare fu fé paré ñu déllu lool rek lañ bëgg dé dañ ñu delloo dal dina baax torop waaw way fi mom defar nañ ko wax dëgg wax dëgg yalla ba mu baax sha allah. champ de course nek marché bu yes bi ñu yóbbu commerçant yi nekkon fële ci marché Sandaga lolé tax commerçant yi commencé di dem di yobbu seni marchandise ngir ko wéyal seenu jënd ak njaay. loolu tax na ñenn ci ñoom di ñaan autorité yi ngir ñu sàmm seeni kàddu ndax fii ak 2022 ñu delluwaat seeni place ca Sandaga